maa ngi nuyu maa moo dem euh, délégation bi fi teew di jiital si nuyoo bi sama tata présidente euh, Aïda di jiital tamit si nuyoo bi euh, sama grand frère Pape Ali te di am mbégte ndaxte Oustaz Adi wax na ko sànq tiis bi xëy na diisoon na mais mujj na oyof je pense que li ma gis si délégation. li ma jot si appel ak message de soutien xëy na bi sama gi génne àdduna sax jotuma woon autant li Oustaz Assane di faral di wax euh, citation wu Obama institution forte moo gën ay personne forte donc je pense que sama loolu la réussir bàyyi fi une institution forte ba ñëpp considérer ko comme un patrimoine waaw je pense que loolu tey moo koy wane tey euh, lii xew nag wax dëgg fa yàlla c'est pour man c'est une volonté de museler une partie euh, de la presse privée bâillonner ko asphyxier financièrement euh, Walfadjri ndaxte je pense que présidente wax na ko sànq mënoon ne rek couper émission bi den ko ñaawlu sax mais du du du tere mën neen continuer suñuy euh, relation contractuelle mais sept jours surtout mois de février bi nga xamante ne mooy mois bu gën a gàtt nga xam ne amul benn patron bu bëgg mois de février donc loolu noonu tey c'est waa na na Walf tëj may rassurer nag sénégalais yi fu du fayit te Walf du faillir à sa mission waaw donc euh, dinañ continuer suñu combat suñu combat nag mooy nekk avec le peuple euh, démb rek maa ngi doon seetaan euh, TF1 journal télévision euh, ñu dem euh, def fi benn reportage euh, Ukraine guerre wane ay images ay cadavres ci mbedd bi je pense que Pape Alé wax na aussi gilet jaune donc aujourd'hui tey nii inf le droit à l'information tey c'est sacré soo ko wanewul on va le montrer ci réseaux sociaux yi on va le montrer ci yeneen yi te avec fake news yi on est obligé tey médias traditionnels yi jël seen responsabilité wane. parce que nag sans Pape li mu doon wax rek le peuple est mûr le peuple est mature xëy na ñoom ñoo jàppee sénégal yi comme ay adolescents parce que Babacar Diagne loolu la bind si communiqué am ne que dañu wone ay adolescents man gisuma ay adolescents parce que jour kii caméraman yi si ginnaaw policiers yi lañu nekkoon di naan lacrymogène donc on voyait à peine manifestants yi mais encore une fois li ñuy wax rek mooy que ñun lii ni c'était une information même si c'était pas man public a droit à cette information et le public est assez mature tey pour euh, apprécier encore une fois ñun lii nii ADN wal fajri la waaw ñun su fekkoon tey lu bees la wala beneen tournure wal fajri la sax ñu wax mais lii nii ñun doon ko dund euh, donc euh, di leen remercier bu baax a baax te di leen wax na que ñun on va internationaliser le combat saisir nañ suñuy avocat fépp parce qu'on a des partenaires américains on a des partenaires français te ñoom ñëpp tey nii mënuñu honorer suñuy engagement donc di saisir tey CEDEAO di leen saisir euh, des tribunaux que ce soit ici au Sénégal mais aussi à l'étranger deuxièmement aussi di leen appeler à manifester déposer neen sànq euh, au niveau des préfets euh, lu mu ti ay manifestation fii nii à Walfadjri le vendredi samedi euh, au niveau du CNRA pour exiger la démission de Babacar Diagne parce que nag autorité organe de régulation c'est pas organe de répression organe de régulation da ngay ñëw waxtaan diisoo jéem a trouver consensus mais pas ñëw réprimer loolu tribunaux yi ñooy réprimer tribunaux yi ñooy ñooy tëj procureur de la république sax du organe de répression day poursuivre loolu moo tax en droit am na benn kii bu ñu tuddee sax erreur de du menuisier mooy doon jàpp ne que procureur sax dafa nekk au même niveau que les parce que moom day day chargé le prévenu avocat de la défense charge euh, war a défendre tamit prévenu donc la même manière tey ñi nekk ci administration bi seen rôle c'est pas de réprimer donc euh, encore une fois den def manifestation le vendredi à Walf le samedi euh, euh CNRA dimanche le 19 février mu nekk place de l'indépendance ñuy fàttaliku aussi 19 mars 2011 bu Sidy Lamine Niass donc place de l'indépendance ñooy woote foofu tamit sénégal yi ñu ñëw foofu noonu contre la censure pour la démocratie wane que Sénégalais yi ils sont matures Sénégalais yi doon bëgg démocratie te euh, kenn gënu bëgg kenn bëggoon gënuñu bëgg Sénégal waaw li Macky Sall wax euh, si sànq gis naa si kii wi mu ne je ne laisserai personne euh, attaquer le Sénégal ñun tamit li mu wax ñun tamit on peut le dire. waaw gënuñu bëgg Sénégal donc euh, on est responsable ñi fi nekk si personnel bi euh, mën naa ne ay collaborateurs Sidy Lamine Niass rek ñoo fi nekk plus de cent pour cent responsables yi tey c'est des responsables euh, nekkoon nañ ko jamonoy Sidy Lamine Niass donc euh, vraiment di leen remercier te di leen wax ne que le combat continue mais Walfadjri sera toujours Walfadjri jërëjëf.